sëriñ Mouroumbe Mbacke bi abat moo nekk nii ci amee Dubaay bërëb sëriñ Mouroumbe Mbacke bi ñu yeesalaat ko lool macha allah bërëb baa ngi nii yàlla na ko sëriñ bi yàggal maanaam mboolem mbokki taalibe rek suñu borom dafa ñu taw ci bërëb bi di siyaare Baye Cheikh Ibrahima bu baax nag Baye Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo nekk ci bërëbu sëñ Mouroumbe bi ak bërëbu sëñ Mourou Xaban bi nga xamante ni moo ñu ci liggéey bi ñu koy Baye Cheikh Ibrahima yàlla na fi yàgg lool te waaw waaw fii ci bërëb bu sëñ Mandoumbe Mbàkke bi ñu nekk fii di siyaare maanaam ñu yeesalaat ko lool nag macha allah yàlla na suñu borom dolli taw féex mboole mbokki taalibe yi Baye Cheikh Ibra loo mën a wax ci bërëb bi. waaw waaw bërëb bi de. ah waaye nag fay moom du fi dugg. daa da daa mel ni yeesaat na de. lépp a yeef. ku yeesaat. waaw waaw waaw alhamdulilah yàlla na yàgg la tuur. waaw ma bërëb yaa ngi nii macha allah ñu fekkee woon bi ñuy bi ñu koy bi ñu koy eh, eh, bi ñu fiy jëlee bâtiment bu bu bu yàgg bi. di fi di fi teg xeer bu njëkk bi ba ni ñuy indee bâtiment bu yees bii lépp ñu seere ko ànd kook sëñ Cheikh Bintu ànd kook sëñ Ibra. ñom ñep rek ñuy ñaan suñu borom yàggale suñu kanam lool te wër ak mbokki talibé yépp ak jóori ñi doon taxaw liggéey bi yépp wa ah, ma bërb suñu ndëmb bi ma ma ndëmb xabaan bi mi ngi ni yes lool wa ah, ñu ngi koy siyar di ko dëggal mbokki talibé yépp rek waaw ah, bërëb sëñ ma ndëmb mbàkki xabaan fi ci armel Touba yi den rek xaritam bi sopem bi mam Cheikh Ibrahima Fall wa ñom ñom mom li mom misal la ñaari jambaari l'islam ñaari jambaari suñu taay dend wa ma sha allah waaw kon nag waa at ñëpp ngeen seere ko bërëb baa ngi nii yeesaat na lool na ñëpp ñëw jaar fii di siyaare incha allah bàyyi Cheikh Ibra nee nii mu yeesee rek ku fi ñëw rek seen mbir yees <laughs> incha allah rabbi waaw ñu sant ñëpp di gërëm ñaan ñaan seen Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu téwéer barke borom taa xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf